yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. jaa ngeen jëf mbokk yi nuy teewlu ci xibaar yi ñu leen doon baaxee ci biir weeru koor 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 daleen ak jàmm ci xibaar yu mujj gi. ñu leen di euh, sant baax leen gërëm ci ànd bi ngeen àndoon ñu ñun xibaar nag ñu doore ko tàggatu gi nga xamante nii doon ko amal fii ci grande mosquée bu Touba doon tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo di imaam yi ak euh, naayim yi muy noddukat yi loole nag at mu jot ñu ko fi amal ci teewaayu ko imaam yu bari ak euh, noddukat yu bëree bëri yoo xamante ni tàggat nañ leen bu baax a baax ngir ñu gën a maîtriser li nga xam ne moom moo jëm ci jiite mbooloo waaye ñu gën a xamaat bu baax a baax li nga xam ne noonu la ñuy noddee ginnaaw noddu googu am na kaddu yoo xam ne Serigne Abdoul Khadir Bousso yëkkati na ko ñaani teewlu ko. waaw salaamaaleykum wa ñu ngi nuyu mbooloom ñëpp ki ñu ñu di siyaare ñëpp ak fu ñu euh, nit di mën a teewloo rek di wax ne tey comme euh, nañ ko daan defee at mu jot rek di euh, amal ay tàggat fii mu jëm ci imaam yi ak nooduka yi tey dajale nañ lu mat juróom-ñaari noddukat jëm juróom-ñett tàggat leen jooyanti leen gaaral téere bi nga xam ne moom lañ génne woon mu tënk mu ko ci wàllu nodd ak liqaam incha allah noon lañ ko fas yéenee defee yeneen jàkka. bu ñu demee nag ba mat ñaar fukki nit danañ am benn ndaje moo xam ne daf leen di boole ñoom ñëpp bu defee bu ñu ñëwee daal di tari li nga xam ne tàggatoon nañ leen ci ñu daal leen di jox ay attestation yoo xam ne day wan ne participer nañ ci euh, formation bi. mbokk yi ci tàggatu kooku la ñuy desandi euh, ba léegi ndax mbooleem ñi nga xam ne ni ñoom lañ doon tàggat muy imaam yeeg euh, noddukat yi ñoom rafetlu nañ bu baax a baax liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma jaare ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo wàllu xam-xam gi ñu ngi leen koy taxaw saa su ne digg leen yokku ci li nga xam ne ci la ñuy yëngatu loolee ginnaaw tàggatu gi am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko ci ñoom ñu ànd teewlu ko. Ah, waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu dañoo ñëwoon fii tey ci jumaa ji ci daayiratul muqaddamatul xidma eh, di def tàggatu noddukat yi ñu tàmbale woon ko semaine bee jàll ñu woote waat tey ñu war a mottaliwaat war ànd ñun itam dañu tàggat ba lañu lépp lu ñu bëgg nodd ci Touba lépp lu ñu bëgg nodd ci Touba mel ni nga xam ne rawukaay lañ war a doon loolu lañ fas yéene digal loolu lañ fas ñu fas yéene ko jàngal ñoom waa daayira bi jàngal ñu ko ba nu man ko ni ñu koy waxe ñu waxe ko noonu loolu nag am nañ ci cant ñun ñi nga xam ne ñoo war ñoo ñoom la ñu wax na ñun ñooy nodd fii ci jumaa yi jàkk yeeg jumaa yi nekk Touba yëpp mbokk yi bokk na ba léegi ci xibaar yi visite bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci euh, grande mosquée bu Touba ak daayira Moukhaddamatoul Khidma di ànd ak ñoom liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy amal ci biir weeru gi kuréel gi nga xamante ni dafa ëmb ay euh, fajkat muy euh, ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum kër docteur ñoom it ñëwoon nañ fii ci grande mosquée bu Touba ci biir weeru koor gi doon ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma liggéey bu am solo bi ginnaaw visite boobu am na kàddu yoo xam ne bàyyeekoon na ci docteur Sare ñu ànd teewlu ko. docteur Abdoulaye Sare responsable moral Touba science médicale nekk chef de service bi ko dante bi hôpital Cheikh Madal Khadim di am mbégte lool di ñëw ci barab bi ni ko sëriñ Laat waxee rek bi ñu ko yëgal ci barab bi moom seenu barab la nga xam ne daanaka waa daayira Muxaddamatul Xidma ak daayira Touba Centre Médical yàgg nañoo liggéey rawatina ci màggal gi tey ñu ñëw fii doon xool liggéey bi ñëw ndogoo si fii si jumaa ju tedd ju sell ji fekk fii nin ko fi baaxoo fekkee rek mooy taxawaay boo xamante ne nii dafa am solo lool taxawaay bi nag euh, dafay tegtal organisation bi nga xamante ne nii daara ji am na ko ndax euh, nit nose mbir yi euh, ba ca tàmbali ga ba ci mujjantal ga waaye disposition yi jël saa su ne jëmale ci wàllum wërgu-yaram mooy gel hydroalcoolique yeeg raxasu yeeg nga xam ne donte corona bi dem na mesure yooyu yëpp ñu bari bàyyi nañ ko waaye daara ji saa soo ñëwee rek fekk moom wàllum wérgu yaram moom ñu ngi ciy dox bu baax rawatina wàllum prévention Euh, li ko jiitu it tan lay taalee ko ndogu yi mooy waxtaan yi nga xamante ne nii dañ ko fi amal ginnaaw tàkkusaan bi te sëñ Cheikhouna euh, Abdoul Wadoud doon ko amal laaj ak tontu mu doon yoo am xamante ne nii ñun dañ koy topp ba suñuy biro di ko teewluwaat ndax daanaka xam-xamu kese la tey ni ma ko baaxoo waxee te sëriñ bi waxoon ko rek ne ni ndox di dundalee suuf noonu la xam-xam di dundalee xol. kon sant nañ lool ci teewaay gi te di leen ñaanal suñu borom nangul leen jëf gi te fulal leen ko jërë ngeen jëf. ba léegi eh, mbokk yi ci xibaar yi nemmeeku yi nga xam ne ñu koy amal fii ci eh, jumaay Tuubaa ji ci biir weeru koor gi ak liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy amal bokk na ci sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom sëriñ Bassirou moom la dénkoon muy saytu lépp lu jëm ci liggéey complexe Cheikh Ahmadul Khadim mi université bu tubaab bi moom nag ginnaaw nemmeeku nga xam ne amal na ko fii ci euh, jumaay Touba ak liggéey bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi ko fi amal am na kàddu yoo xam ne tataan nañ ko ci euh, moom ñu ànd teewlu ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala bu ñu nuyoo euh, ci mbooloo Moukhaddamatoul Khidma ziyaare leen ci weeru tedd bi. ñu ngi am mbégte bu baax ci ñëw fekke jataay bi tey euh, euh, fekk fi euh, waxtaan wu sama rak Serigne Cheikh Fall ma doon def muy waxtaan wu am solo maag Cheikh Mamadou Fadal ñu teewe ko te loolu yéen a ngi koy def <clears throat> ci weer wi yëpp di ko dundal ci ci xam-xam. muy lu ñëpp rafetlu euh, ci ni muy jàlle ci réew mi ak bitim réew euh, kon ñu ngi ci sant yàlla bu baax euh, te ngeen xam ne kon liggéey Sëñ bu rëy la gannaaw loolu nag ñëw naa fi itam tànk yoo xam ne tànk ndigal la ndax dañoo seq liggéey liggéeyu sëriñ bi <coughs> mu jëm ci lépp loo xam ne Euh, yéen nga ko euh, sumb ci jumaa ji euh, muy ay liggéey ñu fiy def ci fànn yu ne sëñ bi nag jox ma ci ndigal boole ma ak yéen ne naa ko ànd ak yéen te loolu tey ci bëccëg rek bi ma ko waxee ne ko ci yéen lay doge la ma la ma la ma gën a dëgëral ci loolu gën koo feddali ne ma nag ndigal li mooy loolu Euh, kon nag euh, euh, loolu mooy mooy tànk yi fekk itam yi ñu fi dajale muy ndogu yi muy am solo di fi mbusoobe waaye waaye mbàkke mbàkke yi dañ ci barkeelu rek waaw waaye am na solo lool itam te wane na ne yéen a ngi dox ci yeneen fànn Euh, ci dëkk bi euh, lu weesu euh, xam-xam bi ak jumaa ji ndax loolu itam taxawu néew ji doole yi la. ñu wéyale xibaar yi ak nataal yi nga xamante ni nataal yi Cheikh Ahmadul la mu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nga xam ne dañ koo fàggoo ca réewum France ay taalibe yu fa nekk toppatoo ko ànd ko kilifa yu bëree bëri ba loolee ñu jënd ko moom lañ indiloon nag. cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides doon ko ko jébbal ci njeextalu ko weeru koor gi loole nag mu nekk jotaay bo am solo boo xamante ni kilifa yu bëree bëri teewoon nañ ko waaye ci biir jotaay boobu Serigne Chérif Mbacké moom cheikh Mouhamad Fadal am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci kanamu Serigne bi doon ko leeral liggéey bu bi ñaan teewlu ko. mbooloo maa ngi mi nga xam ne ñoo ànd ñëw tey doon nataal yi ñu wax ne bi la buñ ko saytoo it mu nuru ko lool fi ñuy tàmbalee nag mooy ndokkeel la ci weer yu nekk mu weeru koor gi nga dimbalu ni ci itam lool ci jotaay bi nga xam ne yaa ko feeñal muy al mashrabu saafi min al manbai shaafi te kenn ku ne ci ñun ñi fay ñëw xam na ne ba mu ca tàmbalee ñëw ak léegi wute nag ba ci ca ba mu ca dala ñëw ci njëriñul bi biti kon loolu mbooloo mépp ak yoon wépp ak jullit ñi bëgg lu wax lépp ñu ngi ñoo ngi ci sant nag liggéey bi mi ngi nii def nañ ci ay gëstu yu bari ngir ngir ngir di wóor li di wóor li rek bokk ci cislaa yi ñu def ne yi tax ñu ñu jàpp ne mooma waxi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam ne fekke woon ba mbokk yi ñu desandi ba léegi ci jotaay bu am solo boobu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides sant na bu baax a baax a baax taalibe yi ci farlu gi ak yitte gi nga xam ne def nañ ko ba indi nataal yi ñëw jébbal ko ko mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni sant na ci am ci mbégte lu kawe ci ay kàddoom yoo xam ne tataan nañ ko ci jotaay boobu ñu ànd teewlu ko. kon nag jërë ngeen jëf jërë ngi sant bu baax a baax a baax a baax alhamdulilah rabbil alamin waaw nii rek la hmm. waaw moom day da ngeen dégg bi rek waaw da ngeen ko dégg sëriñ bi moom. ah doy na waar. waaw waaw waaw waaw moom day moom day moom day waaye man maa dellu sax ñu ne ma ko daa waxee rek sëriñ bi am na boo xam ne dama wax ne soññ soññ na gaay yàlla yëpp man maa ko wax soññ na gaay yàlla naa ko mas na moo waxee ne sëriñ bi ñiwul kenn ci borom loolu mas ah, ci biir loolu itam sëriñ bi gars yi yàlla yëpp jox nañu seen àq te kaw ba ci suuf eh, damay wax ne sëriñ bi moom laa jëkk a wax ne sëriñ bi xajju boromam la ndax man su ko ñàkk wutul tur te du yonent du malaayka waaye nag xajju boromam xajj nag man naa xam ba xam nag ngeen gën ko gën xam luy xajj sëriñ bi xajju boromam la moom rek lañ ko mën a tudde xaj nag yéemul fenn ndax mel na ne ke ko xejjal yéemelu ko fenn ci boppam waaw sëriñ bi foofu la nekk ñëwul kenn ci boromam waaye dañu ko ñëpp yi jox nañ leen seen àq ma sëkk ba ñoom ñëpp yéene nañ ko ci rem man foofu laay xool sëñ bi foofu laa ko digg itam te muy dëgg ci man kon nag alhamdulilahi rabbi ndok ak ndokk noonu ñu amee tawfeex ju tol ne suñu doom bindu nu boole nag sëñ bi foofu la tawfeex mën a yem kon nag ñun sant rek moo nu war alhamdulilahi rabil alamina seen taxawaay ci nan war a nan war a yëge sëriñ bi eh, feeñal ngeen ko taxawaay yu mat na ko jërë ngeen jëf. cheikh Sidi Mohamed Ould cheikh Sidiya Baba sët ci euh, cheikh Sidiya Baba at mu nag day ñëw ci euh, Touba Mbacké euh, gane si cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides ci ngan am solo ren ji defaat na lu ni mel bu mu bàyyeekoo ci résidence Khadim Rasoul ñëw na fii ci grande mosquée bu Touba doon teewee. jotaayu waxtaan yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko fi amal ci ginnaaw tàkkusaan moom ginnaaw ba mu fi teewee jotaay yooyu le am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko mu jaare ci Serigne Mourtada Bousso mi nga xam ne moo doon tekki tekki ay kàddoom ñu ànd teewlu rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin ñoo ngi fi tey ci jumaay tuuba ci diyaafa daairatu muxadamatul xidma ci taxawaay yiñ baaxoo amal at mu jot ci koor gi muy dundal ruu yi waaye nag dundal xol yi dundal jëmm yi loolu moo taxoon ba Cheikh Muntaxa ganam gi mu am ca fonk ko lool muy Cheikh Sidi Mouhamad ibnu Youssouf ibnu Cheikh Sidiya ak délégation bu teel bi màndal baaxoo fee ñëw at mu jot ci mujj koor gi manees na ne vingt-septième jour ci koor gi laylatul xadr moom lañ ko baaxoo ganesee muy luy neex sëñ Muntaxa lool ba mu ñëwee programme bi mu ko tegal démb dana ko ne ñëw ànd ak moom wettali ko ci njàng mi waaye tay mu ne ko na noppal waaye bu ngoonee na dem doge ji mu xad ca daayira mu xaddamatul xidma ndax jëf jooju jëfi sëñ Tuubaa moo tax bu sañoon ku fi ñëw cay kilifa da nga ko comme ni mu ko defee daaw moom nag bi mu ñëw mi ngi ànd ak gan ñu tedd Cheikh Sidi Ahmad Cheikh Mouhamad Fall Muxtaarul Baba ak mboolem mbokki taalibe bi mu àndal sëñ bi am lu mu ci boolewaat ren ne yàlla day wax ne waatul buyuuta min abwaabihaa comme ñoom seen kóllëre waa Touba kër Cheikh Sidi yàgg na daan na ci maam Mor Anta Sali la woon ak sëñ bu soobe ne nañ leen ko nañ woo surtout sëñ maam Mor Anta Sali bi nga xam ne maamam Cheikh Sidi lañ ko tuddee muy sëñ Cheikh Jooreel mi di doom yi Baye Cheikh moom sëñ Cheikh Absa sëñ Cheikh Absa moom lañ tuddee Cheikh Sidi Kabir sëñ Cheikh Jooreel mi ne it maamam lañ ko tuddee daan ne kon ngeen ko woo na ànd ak moom foofa ne bu fekkee dem na ci jumaa ji kon fekk fa sëñ Afe ak waa Mbusoo bi fa nekk ne loolu jaar kóllëre gi foofu la tàmbale woon ci diggante Maam Mor Anta Sali ak sëñ ak ak sëñ waral jotaayub sëñ Cheikh Joreel mi ci ndigal sëñ bi ci la fi ànd ak moom ñëw fi sëñ bi moo ko sàkku ñu desandi ba léegi ci nemmeeku gi nga xam ne Cheikh Sidi Mohamed Ould Cheikh Sidi Baba amal na ko fii ci Touba Mbacké ci jumaay Touba ju mag ji ci jotaay boobu ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Joreel am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati ko ndax moom mooy kilifa gi nga ne ni Serigne bi moom la ko booleloon ngir mu teewlu ko loole nag di cosaan loo xamante ni lu yàgg a yàgg la ci diggante waajuram wa ak euh, ki nga xam ne moom moo di euh, waajuru Cheikh euh, Sidi Mohamed Ould Cheikh Sidi Baba loole nag la ñu ba léegi am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko ci jotaay bi kàddu yooyu ñu an ko. gan gu tedd gii nga xam ne santaane ngir ñu accueillir ko fii. dundal ci nag kóllëre goo xam ne ma nga tàmbalee woon ci moo Mor Anta Sali ak euh, Cheikh Sidie Babal Kabir ba mu tuddee ko seen Cheikh Absa yàlla dogal gan gi ñëw fi sëriñ bi daaw ba ren saa bu ñëwee mu wax ne naa ànd ak ñoom tatagal ko ngir barkeelu ci tur bu tedd wala nga xam ne fi ñu sant yàlla bu baax nag di juddu ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla sunu borom dëgëral taxawaayam mu yàgg fee ñëw yàgg nu fee fekk. te sunu borom defal ko lépp lu mu bëgg ci dara ji maam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu wéyalee xibaar yi ak jotaay yu am solo yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xam muy euh, waxtaane ci thème yu am solo yi nga xamante ni moom la ñuy amal fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji ginnaaw tàkkusaan gu ne ci biir weeru koor gi ci ñaar fukki fan yeeg euh, juróom-ñeent amal nañ fi waxtaan bu am solo woo xam ne Serigne Mbacke Abdourahmane moo ko doon amal muy laaj ak i tontu jëmee ci diine l'islam waaye nag euh, Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdou Khadir teewoon euh, jotaay bi ba ànd kook kilifa yu bëree bari yoo xam ne ñoom it ñëwoon nañ teewee jotaay bu am solo bi ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma liggéey bu am solo bi jëm ci wàllum xam-xam bokk na ci kilifa yooyu seriñ Modou Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke am na kàddu yu ñu taataan ci moom ci jotaay bi ñu ànd teewlu ko. auzu billaahi mina nekk. xanaa di yeesalaat suñuy kàddu ndax defoon nañ ko daaw fekkee ko ren sëñ bi ñu sàkkuwaat ko ñu defaat ko kon di def du lu ko rafet ndax boo xooloo li naa si xas na suñu borom ko te day dëppoog loo xam ne lu wér la ndax li ñu gis la kon nag ñu sant bu baax te lii lépp dafa bokk ci xeeti jokkuk bokk ndax wattaqoo laa les tasaalu na bi al arxama kon jokk bokk ci la ndax euh, jëlee naa euh, euh, rafetaay bi ak lépp waaye nag ñi nga xam ne ñoo fi teew ak ñi ko jiite muy yéen waa Muqaddamatul Xidma nga xam ne dañoo wax ni damay wax toujours maa ngi wax sëñ Laxaat ko yéen dangeen a seddu seddu cër bu doon comme noonu ko waxee ndax liggéey sëñ Tuubaa dara jiitu ci lu mel nii mooy liggéeyal ko ci alxuraan ci lislaam bi nga xam ne moo nekkoon toolam mu ci ñoom bu bëccëg kon bu ngeen ko bu ngeen ko sasoo rek di def ko muy seen sas ci ci yoon yi di def lu di ko rafetlu ah, di suñu borom eggale seen yéene ah, te comme ni ma leen ko waxoon daal communication jamono ji moo ko laaj léegi ah, waaye nag communication bi da def ci anam ga gën a sell gën a rafet. ndax sëñ Tuubaa léppam dafa dafa dafa sell dafa set kon nag di ko wane ci anam boobu loolu am solo te yéen taxawaay boo ngeen taxaw te kenn du leen fekk ba ba naan lu ngeen fii def wala wala luy lu ci seen yoon loolu nag jom jigéen ci boole ak fulla ji teg sa tànk ndax sëñ Abdou Lahad daa eh, ku nekk war naa fexe ba lay teg tànkam fenn bëtam jiitu fi te loolu doxinoo yéen a ngi koy def kon wax dëgg yàlla eh, duñ def lu rafetlu rek. di leen ñaanal di ñaan suñu borom eggale seen yéene ba lii ngeen yëkkati ngeen eggale ko yëkkati ko ba seeni sët ak ba ñeneen ñi ñëw ñu euh, jëlaat ko ci yéen ci anam gu gën a rafet ñu ngi di leen ñaanal suñu borom euh, eggale seen yéene saa yéen baatin bi barakat Cheikhul Khadim jërëjëf mbokk ba léegi ci jotaay boobu ci kilifa yi nga xam ne teewoon teewoon nañ ko di ay boromi xam-xam ñoom it ñu àdduwaat bu baax ci euh, liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy fii ci jumaa ji rawatina mu jëm ci wàllum xam-xam bokk na ci docteur Xaadim Xaadim Silla muy boroom xam-xam bu mag moomit it taataan ay kàddoom mbokk yi mu ngi nekk nii. waaye bi def di muy liggéey boo xam ne. day jëmmal ak màndargaal taxawaay bi nga xam ne Cheikh al am na ko ci dund ak dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ci anam yépp ak tawfiix bi ko ci sunu borom defal ba bi mu ko nekkee ci kaw suuf di ko def ak di ko def lu ànd ak ànd ko ak ñam ko war a àndal yépp ba wan gannaaw liggéey bi ñaan gi mu ñaanan boroomam liggéey bi nekk loo xam ne du laal suuf wax ne wa hablana zurriyatan tudiimu al amala bil alifi wa lam alsaaliha yaa xadiimu waxaat ne zurriyatan ci beneen tayibatan tujaddidu naxja nabiyi mustafa tajtahidu ñaan gim ñaanan moom ak ñim àndalan di liggéey liggéey boobu di dund ak a dundal sunna buñ demee ba wan gannaaw liggéey bi wuy ji sunu boroom fa muy fayee la doon liggéey yal na ko yàlla defal ñu ko wuutu yal na ko yàlla defal moom ak ñam àndalan ñu leen wuutu ci liggéey boobu di dund ak dundal li nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moo nekk mission taxawaay muqaddamatul xidma ci masjidul jaami Cheikh al Xadim bi <coughs> dafay mel ni eh, werante nekkut ci ni dafay eh, mandargaal lii nga xam ne mooy tawfiixi sunu borom subhaanahu ci nangu gi ñu ko nangul ñaan gii ndax liggéey la boo xam ne e, wuutewul dara ak ne yonent bi daan dundalee weeru koor ca jamonoom te ña ko fa wuutu ca fam ko daan dundalee ci aramay ni sharifay ni ba léegi di ko di ko di ko di ko di ko ni dundalee waaye nag tawfiixi sëriñ Tuubaa nag dafa àgg ci nag mu mel melokaan woo xam ne nag moom eh, mber bakkar feggu la bu ko sunu borom defal ndax ñi ngi koy dundal ci di dundal xol yi di berndeel xol yi ci ay jataay xam-xam yu am solo yooyu bàyyiwul benn masala wala xadiya boo xam ne bu aju ci diine te waxtaanewuñu ko fi waaye di ko dundal itam muy di dundal eh, cër yi itam ak yaram wi ci ndogu yi ndax tey yaakaar naa ne li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci maanaa leel donte ab tàndarma la ko woor ba waxtu dog jot ku dégg loola gis nag muqaddamatul xidma li nga xam ne dana ko jox ci ay ndogu ci ay jullit ci weeru koor nga xam ne ay junni la loolu kon da nga xam ne loolu tawfiixu rek la. ba léegi ci jotaay boobu bokk na ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko teewoon mu ñaar fan yéen juróom-ñeent ci weeru koor fii ci jumaay Tuubaa ji muy sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Muntaxa Mbacke moom sëriñ Basiiru moom it euh, teewoon na jotaay bi euh, di rafetluwaat bu baax a baax liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu koy amal fii ci euh, jumaay Tuubaa ji ñu ànd teewlu kàddu. alhamdulilah rabbil wa ala alihi wa sahbihi dafi ridwani wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñoo ngi bokki jullit yëpp di siyaare bokki taalibe yëpp ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci weeru teddu baax wi ñu nekk waaye rawatina fan yu mujj yi nga xam ne mooy fukki mujj ci weeru koor ñu di ci sant yàlla bu baax di ci sant suñu borom ci fekk gi mu ko fekkeloo ak uh, may gi nu may man cee def dara ci jaamu ak lu mu tuuti tuuti yàlla na yàlla nangul nu jaamu yëpp uh, ci weeru koor bi yëpp uh, waaye rawaat na fukki yu yi jéggal nu itam rëcc rëcc yépp te mbayam sax ci njéggal gi waaye mu soppi ko aw yiw yëpp dencal na ko ci sunu jëf yu baax di sant yàlla nag di doole sant xaadimu rasul ci barab bii nu toog barabam bu tedd bi nga xam ne mooy eh, jubluwaayam bi mu gën a bëgg te doon jubluwaayam bi mu gën a fonk yàlla may nu di fi dund moom ciy sant bu baax liggéey bi nga xam ne itam moom nga may laaj tàmbalee ko ci liggéeyu weeru koor wi ak liggéey bee nga xam ne moom la sëriñ bi def ci biir kër gi ak liggéey bi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma bi mu dénk liggéey jumaa ji di ko def fii ci weeru koor wi xanaa di di ko rafetlu rek di ko rafetlu bu baax ndax day liggéey boo xam ne dañoo gàttandu jullit ñëpp gàttandu taalibe yépp ndax lii ñu fiy def di yeete di jàngale di dimbale nit ñi loolu dimbal la ci taalibe yëpp. mbokk yi Cheikh Abdou Bali Mbacke muy Serigne Cheikh Abdou moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bokk it ci kilifa yi nga xamante ni ñoom it teewe woon nañ fii ci euh, grande mosquée bu Touba jotaay yi nga xam ne moom moo mujj ci euh, weeru koor gi ci ñaar fukki fan yeeg euh, juróom-ñeent mu nekk ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci solos. Euh, thèmes yi nga xam ne ñu ngi koy tànn fii ci euh, jumaay Tuubaa ji waaye liggéey bu am solo bi nga xam ne dafa jëm ci euh, wàllum xam-xam dañ koy amal fii ci jumaay Tuubaa ji lépp daayira Muxaddamatul Xidma di ko amal àdduna ci moom Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaynde ñu ànd teewlu ko. ñu ngi nuyu mbokk yi ñu seetaan ci teewaat fii ci jumaa ji ci wala ci seenu bu njëkk. ci ndog yi Moukhaddamatoul ma di def di ko booleeg ay conférence ba weeru teroo ba léegi mu nekk mbégte mu rëcc ñun nag ndax ñun yàlla dafa dogal daayira bi di ñi ci nekk ñëpp di suñu ay wëlëre muy lu yàgg bañ ko soog a tàmbali yàgg na ëpp na fukki at ak juróom booba ci ñu néew ñu ko daan ànd ak ñoom la loolu fàttewuma ko mu dem a dem ba toll nii ba réew mépp di ci def seen loxo néew doole ci dëkk bi yëpp di fi ñëw di fi doge si ñu dogal par bis foog naa lu man ñetti junni nit loolu dañ ci am mbégte di ci xamee ne liggéey la boo xam ne sëñ bi nangu na ko nangu na ko ndax ci ak koy defee ndax fii moo fi gën a jege sëriñ bi nangu na ko ndax mag gi muy mag ak yokk gi mu yokk nangu na ko it ndax ñi ci nekk dama xam leen xam naa seen pas-pas ak seen takku ak seen bëgg liggéey sëriñ Tuubaa kon képp ku ci yàlla boole rek am nga xewal goo xam gu rëy la. mbokk yi ba léegi bokk na ci kilifa yi nga xamante ni rafetlu nañ liggéeyub euh, daayira Moukhaddamatoul Khidma ci biir weeru koor gi ak lu dul koor gi lépp rek jëm ci ni nga xam ne noonu la ñuy saytoo jumaay Tuubaa ju mag ji rawatina jotaayu xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci jumaa ji ci biir weeru koor gi lépp ñu koy wasaare ci biir réew mi ak ca bitim réew loolee bokk na ci kilifa yi nga xam ne rafetlu nañ ko. muy euh, Serigne euh, Cheikh euh, Mbacke moom it kenn ci sunu natango yi taataan na ay kàddoom ñoom ñoo nekk nii. tey am mbégte ci teew bi ñu teew fii di sant waa daayira bi nga xam ne ñooñu ci boole muy lu rëy ci noonu ndax du lu ndaw ndax ñu teew ci barab bi rek fekkee lii yiwu mag a mag mag la daayira bi nag tey daayira boo xam ne bi moom ñëpp ko war a teg ci kaw ndax li ñuy def. du loon loo xam ne kenn du koy naatable day dalay wóor ceng ne lu suñ tubaa gërëm la te Cheikh Abdoulaye daa am lu waxoon yàlla nañ ko yàlla fayal dana woon di def dara jàpp ne baax na di def dara mu wóor na ne ceng ne baax na moo gën a wóor lii nag ku ci bokk xam nga ne lu baax la ku ci teew xam nga ne lu baax la ku ci teewut ñëwoo ci bokkoo ci boo ko déggee te gis ko da nga xam ne lu baax la. Serigne maam Cheikh Mbacke moom Serigne Khadim Awa Ba mi nga xam ne moo jiite AIS di nga xam ne. ñooy euh, taxaw lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum euh, soufisme moom it euh, bokk na ci kilifa yi nga xam ne àddu nañ ci ñaar fukki fan yeek juróom-ñeent ci weeru koor ci jotaay nga xam ne ñu ko doon amal fii ci jumaay Tuubaa ji moom it mu rafetluwaat bu baax a baax liggéey bi nga xam ne moom mooy bàyyi ko fii ci jumaay Tuubaa ji ci biir weeru koor gi ak taxawaayub daayira Moukhaddamatoul Khidma sëriñ maam Cheikh Mbacke kàddoom mi ngi nii ñu am teewlu ko. bismillahi rahmaan alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman xanaa di santaat yàlla di julli jontu sallallahu bi mu ñu mayaatee ci weeru teddu màgg wii di shahru ramadan al mubarak ñu ñëwaat fii ci jumaa ju mag ji jumaay Tuubaa fas yéene ko àndaat ak bis yu mujj yi sunu mbokk yi tedd yi nga xam ne ñooy daayira muqaddamatu xidma bi xam ne ñoom la Cheikh Mouhamadou Mountakha dénkaat ñuy saytu jumaa ji ak xormay jumaa ji euh, ñu ñëwaat comme ni nga ko baaxoo defee chaque année ci waxtu yi ñu ñëw ngir euh, yeesalaat kóllëre gi nga xam ne moom lañ dox suñu diggante ak ñoom te mu jaare ci sunu mag sunu kilifa di sëriñ Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké mu sëriñ Xaadim Awa Ba ñi nga xam ne ñu moo ñoog daayira bi dañoo fasante kóllëre ngir liggéeyal sëriñ Touba ci biir jumaam jàkka ji ndax kenn wentuwul ne juma gannaaw bañ ko tabaxee ba pare dañ ko war a saytu dañ ko war a dundal dundal gi du julli ak woor kese la waaye saytu ko ci lépp loo xam ne dana tax nekkinu jumaa ji ak eh, ak ak taaraayu jumaa ji ak sellaayu jumaa ji mën a tegu na ko lislaam bëggee ba léegi mbokk yi ci eh, ñaar fukki fan yeeg juróom-ñeent ci eh, weeru koor gi ba kilifa yi nga xam ne ñu ñoo teewoon jataayu waxtaan yi Euh, bokk na ci euh, boromi xam-xam yu kawe ci ñooñee Serigne Moustapha jatar mi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum euh, bibliothèque Cheikhul Khadim bi muy daaray kaamil ji nekkee ci Touba ci penk jumaa ji moom it bokk na ci kilifa yi nga xam ne te woon nañ jotaay boobule moom it mu rafetluwaat bu baax a baax a baax liggéeyu am solo yi ak waxtaan yi nga xamante ni mën naa jariñ ku ne Euh, ci fi nga xam ne fi lay bàyyeekoo muy ci euh, jumaay Tuubaa ji comme ñu an teewli kàddoom. mbokk yi jullit yëpp mu ngi leen di nuyu fii ci jumaa ju mag ji Jaana al Kabir mu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ndokkeel ci shahru ramadaanul mubaarak di shahru Qur'aan di shahru siyaam di shahru al muslimin xam ngeen ne ñoo ngi ci diggante bi nga xam ne benn wala ñaari fan incha moom rek moo des ci koor gi jeex kon mën nañoo jàpp ne mooy fan yu mujj yi gën ci koor gi muy al ashrul awaaxir min ramadan muy fukki fan yooyu nga xam ne suñu borom dafay wax ne ayt yonent bi dafa wax ne aytqun min an naar ci la yàlla di goreel ñi nga xam ne ñu ñëpp dañoo naroon dem sawara suñu borom jéggal leen gore leen xam nga ne nag ni ko Touba di dundalee biir koor gi macha allah ni ñuy dundalee weeru koor ci na ko sëñ Touba bëggee woon ñu koy def loolu moo tax nag jumaa ju mag ji ñoom ci seen bopp kenn jiitu leen ci ñu di ko dundal diiru weeru koor wépp bis bu ne ñu am ay duruus yoo xam ne danañ koy joxe. Eh, muy jàll ci Wassare Lamb yëpp eh, di egg ba di bitim réew di egg fu nekk loolu lépp luñ ci jublu weesu wut maanaam bëgg nit ñi ci seen jëm bopp ñu gën a yeewu gën a xam lislaam gën a xam diine loolu rek mooy li nga xam ne mooy moom lañ ci jublu daayira bi nga xam ne moo yor jumaa ji Muxaddamatul Xidma ci njiital sëriñ Afe ak ñi mu àndal ñu taxaw nag taxawaay boo xam ne taxawaay bu amul morom la wax dëgg yàlla taxawaay boo xam ne ku ne teg na sa bopp ci li nga xamante ne moom la ñuy liggéey ku ne gis na jumaa ji ni mu meloon bu njëkk ak ni mu mel léegi nizaam bi yokku na taar bi yokku na set gi yokku na taxawaay bi yokk na lépp wàllu gooseer rek wax dëgg yàlla daayira bi taxaw na ci taxawaay boo xam ne ñëpp xamal nañ seen bopp ne wax dëgg yàlla lii moom taxawaay bu ñu ko weesu kon loolu nag. Euh, nañu xam ne ñëpp ci bëgg ñëpp ci euh, ñëpp leen ci soñ yi ñëpp ci war a jàpp kenn ku ne itam war ngaa xam ne lii liggéey la bu boo xam ne yombul liggéey bu yombul ndax liggéey la boo xam ne dafa xaw a jafe xam ne bët bu sedd la waxtu wu ne la nekkul loo xam ne yomb na kon nag bis bi tey jii nga xam ne ci lañ koy war a jeexal yéen a ngi dégg noonu Cheikh Mouhamadou Moustapha Abdoul Khadir di ko di ci di waxtaan Euh, mi nga xam ne at mu jot mooy dikk fii moom lañuy ñuy euh, jëli indi fii ñu waxtaan ak ñoom njabootu Sëriñ Tuubaa gépp dikk fii fekk ko ngir bëgg a fekke sa jotaay bi kon loolu itam kontaan nañ ci lool bég nañ ci lool ñun fekk gi ñu ko fekk ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fekk ko nag ay déwén ay déwén bu nekk yàlla yokk nu wér yàlla yokk nu yokk dëkk bi yàggal fi nag ki nga xam ne mooy xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool li nga xam ne mooy ay machaari am ak i projet am ak lim soxla lépp suñu borom eggale ko ñu eh, ngi ndokkeel waa daayira bi bu baax a baax nag ñu ngi ndokkeel waa daayira bi di leen ndokkeel a eh, encouragé bu baax ci yoon bii nga xam ne moom lañ jaar yoon wu am solo ñu ngi ndokkeel ñëpp wasalaamaaleykum Serigne Cheikh euh, Aliou Mbacke moom bokk na ci kilifa yi nga xamante ni teewoon nañ jotaay yu mujj yooyu le mu ñaar fukki fan yeeg juróom-ñeent ci biir weeru koor gi jotaay yu am solo yooyu nga xam ne noonu la koy teewee at mu jot moom it àdduna ci li nga xamante ni moom moo jëm ci euh, solos euh, waxtaan yi waaye solos mboolem liggéey yi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu koy amal fii ci jumaay Tuubaa ju mag ji moom Serigne Cheikh Aliou Mbacke ay kaddoom la ñuy ànd teewlu ko. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rasulillahi sallallahu di sant ku baax kii nekk ci suñ ginnaaw di xadimu rasul nga xam ne lii moo ko waral tey moo ñu xamal lan mooy lislaam ñu ginnañu ngeen fii ci barab bi féete féete fi yéen waa mu xadimatul xidma di liggéey liggéey bu am solo boo xam ne addina eh, bi yëpp ngeen koy liggéeyal fii ndax sëriñ bi xeli àddina yëpp ne ci moom ndax da koo liggéeyal Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ba may ko lii kon nag euh, ni ngeen ko taxawee rafet na seen taxawaay dajale jullit yi dajale taalibe yi dajale ñëpp di jaamu yàlla fii ci jumaa ji ci wetam ci shahru rawatina shahru ramadan mubarak ngeen di joxee fii di fi jóge ay xam-xam yoo xam ne di fi balle euh, ci diine ji ak ci àddina bi ndax ci àddina la ñuy waajale ëllëg waaw xam-xam yooyu yëpp di fi ball yoo xam ne alhamdulilah ba ne sa cee doy ren ba déwén at mu ne ngeen def ko euh, te yàgg nañ ko def yaakaar naa ne lépp man ñaar fukki at bu ko defee ñu jël suñuy jumtukaay fi naa ne noonu fi njëkk def euh, diffusion en direct ci rajo te boobu ba léegi dakkul incha allah noo ngi koy def te loolu itam bokk gun bokk ci yéen rek ngeen boole ñu ci yéen ubbil ñu looloo ko waral kon nag euh, ñëpp ngi leen di gërëm di leen sant. yéen ñi nga xam ne yéen a dëkkaaleeg euh, xadimu rasul fii ci euh, barab bi ci jumaa yi ju tedd ji nga xam ne wax dëgg yàlla jumaa jaraloon na ko lu ne euh, néegu yàlla rek moo ko jaraloon lu ne ndax wajaal buyuti kullaha masajida yaa naafiya man laa yakunu sajida loolu moo koy firndeel kon alhamdulilahi rabil alamin yàlla ngeen ko yàgg def ak mu ne day mel ne bu ñëwee rek gën a aw yoon wa ca des ndax seen pësteef seen yéene seen taxawaay seen himma ci liggéey bi ngeen di liggéey gën ko liggéeyal ko toogal fi nag ñëpp nag waaw ku ko yéene ñi ko yéene ñëpp te mënuñu ko eh, yéen a ngi leen di wéyale ci seenu liggéey kon nag ñu ngi leen di ñaanal ngeen yàgg ko def mu yàgg fee daje eh, di siyaare ñi fi teew ñëpp mbokk yi fi teew yëpp bàyyi wuñ kenn eh, siyaare sëñ Kosso bu baax di ñaan mu jottali ñu suñu siyaare sëñ Muntaxa ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko jërëjëf Xadim Rasul daara Hizbut Tarqiyyah ñoom it yebaloon nañ ndaw fii ci eh, jumaay Tuubaa ju mag ji ci bés yooyu le muy bési mujj yi ci biir weeru koor gi muy Serigne Mourtada Seye mu yoroon kàddu yi Serigne Sidi Serigne eh, Youssou Diop mi nga xam ne mooy responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah ñoom it ñu ñëwoon doon ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom it ñu ngi koy amal Euh, fii ci euh, jumaa ji ñoom it ñu sant leen bu baax a baax a baax gërëm leen ci seen taxawaay ci liggéey ba am solo bi nga xam ne ñoo ngi koy amal ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Mourtada Seye ci turu Serigne Youssou Diop. xanaa di sant yàlla suñu borom rek moom nga xamante ne moo defal tawféex ba ñu dajawaat fii ren jii dañoo ñaanal suñu borom dafa daje ay ati ati at ngir. màggal weer yu màgg yi nga xam ne ku fi ñëw sa xel dana dem ci sant waa na nga ko daal di fay si njaareem ci sant bu baax a baax gis nañu weer wi ba mu tàmbalee ba léegi li tëjee benn la pas-pas bi benn la mbooloo mi bisu set day yokk bari na ay barab yoo xam ne dañuy jàpp ne su weer wi teroo mbooloo mi dañ ca xir wala su weer wi demee bay sori loolu xewu fi. fii lu weer wi gën a dem a xew ci borom bi loolu nag nag mooy liggéey bi sant ba nangu la kon nañu ñaan yàlla suñu borom xéewal ba ñëpp ba kenn ba kenn ku nekk xam ne sëñ Tuubaa mooy xéewal sëñ Tuubaa mooy jàmm sëñ Tuubaa mooy naataange loolu ñu ñaan ko di sant bu baax a baax mu xam ne ci turu sëñ Youssou Diop moom dafa jógoon bay ñëw sëñ bi wóoru ko mu daw dem ci daal yabal nañu nañ daw ñëw waaye eh, yitteem xelam ak léppam rek moo ci barab bi yi ba léegi ñu xibaar yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Khadim aw Ba bokk na ci kilifa yi nga xam ne dañoo am taxawaay bu am solo ci jumaay Tuubaa ju mag ji ànd kook daayira Muxaddamatul ma ci mbooleem activités yi nga xam ne ñu koy organiser fii ci jumaa ji rawatina weeru koor gi moom nag eh, at mu jot bés mujj ci biir weeru koor gi dañ ko ci eh, jagleel ko ko moom nag day ñëw ànd ak délégation bu am solo ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma liggéey bi teewee waxtaan yi waaye teewee ndog am solo yi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci jumaa ji ginnaaw gi am na kàddu yoo xam ne bàyyeekoon ci ki nga xam ne joxoon na mu wax ci turam ñu ànd teewlu ko. ñu ngi koy sant ñaan mu may leen koy wax digal yu bëree bëri di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg bi lool te ànd ak wér ak mboolem kilifa yi diine yëpp di ko ñaanal njabootu Serigne Touba yëpp di sant bu baax a baax imaam ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ne ko ci jumaa ji ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal muy Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy liggéey lislaam ca di ko liggéey ci toolu sëriñ Touba. rawatina ci weeru tedd wi nga xam ne mooy shahru ramadan ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm nii nga xam ne noonu lañ ko baax def at bu mu ne bu ñu agsee ci bis bi ànd ko Cheikh Mouhamadou Basir mi nga xam ne day woo bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Bara ak ñi ngam la xam la ñoom la bokkal Daaru Khoudoss muy wàkk Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ànd ko ak imam ak daayira bi teew ci bis bi nam ko daan def rek noonu la ko daan defee kenn ku nekk xam ne lu jiitu bis bi tam woote woon na amoon na ndaje moo xam ne woote woon na ko am ndimbal yoo xam ne da ko doon dimbale jumaa yi ak daara yi lii nag dafa fekk aada la joo xam ne nii wax bu ñu àggee ci bis bii rek dana dajale ay bokkam ak ay xaritam ñëw teew ci kanam imam ak waa daayira bi yëpp indi li nga xam ne noonu la ko baaxoon a def muy li nga xam ne addee Serigne Touba la ak euh, def gi mu koy def it defu ko jëmmi boppam da koo defal Cheikh Mouhamadou Moussa bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Amine Bara ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké gépp nag ca kenn jiituwu ca kii nga xam ne mooy Cheikh Saliou Mbacké di xalifaam di magam di kilifaam di léppam loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne waxoon nañ ne bu ñëwee danañ ko ci yëkkati rek di sant bu baax a baax imaam di sant daayira bi nga xam ne itam ñoom la àndal liggéey bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu yàggu koo taxawee lépp yi ba léegi ci jotaay boobu la ñuy desandi ki nga xam ne moom moo di imam bu Jumaay Touba di Serigne Afia Bousso sant na bu baax a baax Serigne euh, Basirou Khadim Awa Ba ci liggéey yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy def saa su ne ànd kooku daayira Moukhaddamatoul Khidma rawatina ci biir weeru koor gi waaye ni nga xam ne noonu lay taxawo saa su ne ci mbooleem événement yi nga xam ne ñu koy organisé fii ci jumaa ji ñu ànd teewluy kàddu yi Serigne Afia wasalaatu wasalaamu ala asal mursalin ñu lay nuyu bu wax di nuyu kilifa yu tedd yi nga àndal sëñ Cheikh Abdou Bali ak sëñ Abdou Aziz ak sëñ Cheikh ak sëñ Bachir ak mboolem mbokk yu baax yi nga xam ànd teew ci bis ñu delooti rek di feeñal suñu mbégte ci seen teewaay ak suñu cant ak suñu ngërëm di wax ne lii lu rëy ci noonu la ndax nun njaboot sëriñ bi ñoo xam ne liggéey sëriñ bi rek moo ñor kon buñ demee ba toll fii njaboot sëriñ gu toll ni toll gu toll ni gi fi teew tey teew fi loola mbégte doon ci nun xol bu set la doon ci nun ba man tey xawoon maa xaaru sax ba bi may julli sax xawoon maa tàggu sama sama ci biir boobu tuuti ndax rek ndax xol bu xol xol xol bu set ba tax na kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow nag gannaaw bu ñu sante ñëpp ba noppi dañ wax ne dina xaw a jàppal waaye am na. yow day bis boo xam ne tey da nga ñëw ak say bokk ñu war a feeñal suñu cant ceew moom dafay sax ndax sa jëf dafay sax ndax ku geesu ci jumaa ji ñun ñi nga xam ñoo xam li fi dox gis sa jëf te képp koo xam ne mën nga ko lonk andi ku mu jëf lonk ko mu andi jëf te yàlla tax la mu jëf nag yàgg nañu ko seq dong ko xam loolu kon jëf ngir yàlla rek la jëf ngir yàlla ak seen tubaab mi ngi ko seqal nga xam nga ko jëf tey nag day bis boo xam ne see bokk dafa daje kon fokk ñu feneen cant gi waaye cant gi bi lool ndax liggéey bi nun néew nañ ci doole ndax te waxtu ci yemb gaag bu suñu ñëwee rek mu diggante ko fa saasa anam boo xam ne ma ma dem du wax sax ne bu loolu nag nga xam ne seere nañ ko bu baax sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax nga def gën a seere tey moo am fay ñu nga ñaanal suñ fay fay la yàgg ñi nga àndal ñëpp suñ borom musal leen sàmm leen yéen a xam fa ngeen bëgg àgg su ma àggal leen fa ci àggeen ba gën a rafet ak ñi nga àndal ñëpp barke Sëñ Tuubaa ñun daal sant fa mutué sant waa koñ wax ne weesu sant ngi sant ñëpp di sant bokk yi nga àndal yëpp itam ndax xam ne ne li nga seqal da nga seq ak bokk yi ndax lii ku ne xam ne ne jafe na ndax maanaam nit suñu rom mooy ko teraanga mu ànd ak bokkam mm-hmm. lu jafe-jafe la waaw ah, lu jafe-jafe la te xam naa ne yàlla te xam ne yàlla te xam ne yàlla may na la ko waaw ah, yàlla may na la ko ndax lii moom xol xol mooy xol yu la nangul xol yu la nangul nag mooy da nga leen nangul moo tax ñu nangul xam nga sa xol nangu nga ne na ne ànd nga ak say bokk sa teraanga taggalul ak say bokk te lu bari nag bari na bari mu koy defee mm-hmm. lii nag mel ne daf la boor ak say bokk loolu nag tawfiq la ndimbalu yàlla lay tam ndax addina moom teraanga moom benn mu njëriñ rek ma am lor mu njëriñ dana mu njëriñ dana mu nurul njëriñ waaye daa lor ndax la mu yàq mu ëpp la mu ne xam ne kon li mu njëriñ mu ëpp lu mu lor kon ñaan daal kon ku bëgg a àggale yaa bokk ñu àndal yëpp mu àgg mu àgg fa waaye yaa ko xam ba ko bëgg àgg yaa ko na nga mu bëgg àgg fa yàlla na fa àgg an gën a rafet ni ko bëggee ak sëñ Tuubaa noonu nag ñaan rek lañ man mënul la leen waaye nag ñaan moom ñu ngi si ak sant ak waaw li wax na daal lii moom day sant ñu feeñal ko waaye sa gis ñun moom dafa sax ndax sa dafa sax ci moom ndax fu ñu toll dafa ñu gis loo xam yaa koy jëf waaw kon ñu mi ngi ci ci turu daayira bépp ak turu suñu xam yi weeru koor ko 1444 ginnaaw gàddaay ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di liggéey yu am solo yi nga xam ne daayira mu xadamatul xidma amal nañ ko ci diirub fanweeri fan yi fii ci jumaay Tuubaa ju mag ji loolee lépp euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdoulaye Diop ñëwaat na ci ci nu mu gën a yaatoo ci mboolem liggéey yu am solo yooyu waaye sant bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon liggéey bi ñu ànd teewlu kàddoom. ok jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di bu baax a baax euh, dellusiwaat ci liggéey bi rek xam nga ne tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci shahru ramadan al mubarak atum 1444 dëppoo itam ak 20 avril 2023 ku wax ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor nag fii ci jumaay Touba sar xel dina dem ci euh, tëj tëb liggéeyub daayira muxaddamatul xidma ba tax na jataayub tey bi yéen ñëpp yéen a ko seetaanandoo noonu ci image yi muy jataay bu am solo boo xamante ni sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir moom la sëriñ bi yebal ngir mu ñëw joxe kadduy tëj tey waaye lu ko jiitu xam ngeen am nañ jataayu fatwa boo xam ne sëriñ Mbacke Abdourahmane moo ko doon def ngir. Euh, tontu laaj yi nga xam ne moo fi ñëw te aju ci diina bi mu noppee sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno jël na kaddu waxtaan ci li nga xamante ni moo tënk liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi mu noppee jox sëriñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar mi doon wax ci turu nag sëriñ Afiya Bousso mi jiite daayira Muxaddamatul Xidma ci la sëriñ Moustapha Abdoul Xaadir doog a accès ñu jox ko kaddu gi waaye nag ci teewaayu kilifa yu bari njabootu Cheikhul Xadim gi kenn desul kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk ci yoonu murit kenn desul moo xam biir Touba wala biti Touba kenn desul waaye itam administration bi kenn desul ñoom ñëpp ñu ñëw fii teewe liggéey bi ndax ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen gi daayira Muxaddamatul Xidma dafa nekk fi ñëpp bokk fi nga xam ne du lenn kenn lépp ñëpp lu ne ku ngi ci muy jumaay Tuuba ba loolu moo tax lépp lu muy def daf koy ubbi ngir mbooleem kuréel yi nga xam ne ñooy yëngutu ci yéenu murit te bokk pas-pas bokk ak ñoom pas-pas ñëw ànd ak ñoom ci liggéey boobu kon euh, liggéey boobu nag tënku woon ci juróom-ñaari commission ni ko waxee woon ci njëlbeen gi ginnaaw Serigne Afia mi nga xamante ni mooy njiit li waaye am nañ secrétariat administratif boo xamante ni wala secrétariat général boo xam ne ñoom ñooy coordonné liggéey bi ak secrétariat administratif boo xam ne ñoo lépp lu ñuy bind ci wàllu administration ci daayira Muxaddamatul Xidma ci biir loolu am na commission organisation ñooy organiser lépp loo xam ne événement la ci biir daayira Muxaddamatul Xidma am commission sociale bi nga xamante ni mooy dox relations sociales yi ci biir daayira Muxaddamatul Xidma ak commission communication bi nga xam ne mboolem li fi xewee ñoom ñoo koy tas ba ngeen mën cee jot am commission finance boo xam ne ku tudd ab organisation da nga tudd finance ñoom ñooy saytu loolu ak commission culturelle bi nga xam ne nag fanweeri jataay yi waxtaan yi nga xam ne moom la daayira muxaddamatul xidma amal ci biir koor gi muy fukki conférence ak juróom-ñett waaye ñeenti fatawa ak juróomi duruus yoo xamante ni ay bind la juróom benn duruus yoo xamante ni ay bind la yu aju ci wàllu xam-xam ñoom ñoo koy taxawee kon muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la boo xam ne kuréel gu ci nekk ci commission yi bu ci nekkee lañ la sasoon wala la nga sasoo woon ne di nga ko def def nga ko ba defee lu kawe njortu kon incha allahu taala euh, ci waxtu yi di ñëw sax danañ leen gën a tënkal liggéey bi ci rapport final bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moom la def ci biir koor gi ci lépp loo xam ne ay activité la wala ay mbirum finance la te mu aju ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma kon ñi ngi yëkkati foofu jotaay bi di leen dig daje ci waxtu yi di ñëw incha allahu taala jërë ngeen jëf mbokk yi lii mooy liñ leen indiloon ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen doon baaxe ci biir weeru koorub 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 fii ci grande mosquée bu Touba ñu leen di santaat bu baax a baax di leen gërëm waaye daa daayira Muxaddamatul Xidma di sant mbooleem partenaires yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bu am solo bi rawatina mbooleem chaîne de télévision yi nga xam ne ñoo doon diffuser en direct mboolem waxtaan yinga xam ne ñu ko doon amal fii ci jumaay Touba ji ci diiru fanweeri fan yi ñu jiital ci euh, télévision Lamp Fall TV ak mboolem chaîne de télévision yi nga xam ne ñoo ngi ko doon direct rajo yi it euh, fàttewuñu leen euh, jiital ci waa jant bi FM ak mboolem rajo yi nga xamante ni ñoom it euh, ñu ngi doon jël signal bi doon ko diffuser en direct noonu la ñu sant it mboolem site internet yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba ak ci bitim réew ak ci biir réew mi yëpp nga xam ne ñi ngi àndoon ak daayira mu xadamatul xidma li nga xam ne moom moo di waxtaan yi def ko seen mbiri bopp nga xam ne kenn ku ci nekk def na ci liggéey bu am solo mboolem site internet site internet yooyu le daayira Moukhaddamatoul Khidma sant na leen bu baax a baax gërëm leen waaye sant mbooleem partenaire am yi technique bi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi moo xam cadreur yi moo xam monteur yi moo xam réalisateur preneur de son yi képp koo xam ne technicien nga journaliste ak animateurs yi ñëpp rek sant nañ leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñu àndoon fii ci biir weeru koor gi di leen santaat bu baax a baax di leen gërëm dig leen daje incha allah yeneen i xibaar yoo xam ne dana fi bàyyeekoo waaye ñu ñaan yàlla suñu borom may ñu fekkee kooruk 1445 ginnaaw gàddaay gi di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñaanal ko mboolem kilifay diine yëpp balu leen àq ci biir weer koor gi di leen balu àq di ñaan yàlla suñu borom jégal ñu waaye di leen ndokkeel ci korite gi di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu taw tawfiix ak taysiir dolli jàmm ci biir réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf